enveloppe yi ñuy séddale apulaay ñu wanaat sénégalais yi wala téléspectateurs yi carte bi carte bi dañ leen koy tegal ngeen tànn région bu leen neex région bu ngeen ubbi lu ngeen fa fekk ci enveloppe dañ leen koy envoyé directement ci seeni euh, téléphone portable donc pendant que ngeen di woote ñu tàmbali waxtaan wi ak euh, sunu invité coach encore ñu ngi lay gërëm euh, li ñuy njëkk a waxtaane mooy quotient émotionnel maanaam tolluwaayu nit ki ci xel mhm. balaa ñuy ñëw ci sago parce que dafa am yoo xamante ni sànq da nga koo lim mhm. muy kontaan mer euh, tiit ak tiis di ñeent yoo xamante ni war nañu jàng mënu ko maîtriser. Mhm. coach waaw jërëjëf Pape Cheikh. Euh, mu ma leeral foofu benn benn mbir ci ci ci intelligence émotionnelle ak ni ma intéressé. ak mhm. sago ci boppam ni ma intéressé. Mhm. man ci benn dama doon liggéey ci benn multinationale boo xam ne xëy na du ma tudd tur a publicité. nekk euh, filiale am nañ filiale fii Sénégal. 2016 euh, doon wut formateur. yoo xam ni ñooy former ñi nga xam ne ñoo nekk ci cluster Afrique Océan Indien bi yëpp. Sénégal man lañ tànnoon. bi ñu tànnee ñu former ñu. pour ñu accompagner collaborateurs yi ñi la ñi liggéeyandool mm-hmm. eh, waaye def am na eh, maanaam ñeent fukk ak ñeenti module de formation yoo xam ne ci la ñu woon pour ñu former leen mm-hmm, mm-hmm. man bii moo ci gënoon a sama attention ah. mooy bii wax ci intelligence émotionnelle eh, lu tax parce que dem ba yëg ni man ci sama jëmmi bopp dama ko soxla ah soxla ànd ak sama sago waaye ma yëg ni waaw ma yëg ni réew mii di Sénégal bi ñu ah. nekk man xam naa ni it lu ñu soxla la. Mhm. waaw ndax dañuy topp suñu émotion ba mu ëpp. Mhm. Mhm. yenn saa émotion yi nag daf ñuy nax même ci suñuy jugement. même ci suñuy bu ñu war a interpréter xew-xew bu amee dañuy gaaw gaaw rek wax. te sago moom daf lay tere loolu. da naan teg xaar. déglu xool càmbar. donc ma muy loo xam ne lu ma intéressé la moo tax nag ma ma gëstu ci 2016 2017 ba léegi maa ciy wax. maa ciy wax parce que lu ma lu ma intéressé la. Euh, yàlla dogal na tamit ci ci sama liggéey. boobu euh, tey mën naa yëpp mat nañ fukk ak juróom mhm. yoo xamante ni wax dëgg yàlla euh, waxtaan nañ ci wala tàggat nañu leen ci ci domaine bi ak yeneen i domaine mhm. donc muy ay lu yu euh, expérience daal bu tuuti boo xam ne cumulé naa ko fii ak bitim réew mhm. Euh, ma ma ma ci doon préciser rek ni waaye nag loolu yëpp bu ñu ko mënee jox suñu waaw réew moo ñu ko moo ko gënal léegi quotient émotionnel bi nga wax xam nga euh, xam naa ñi ñu seetaan ñu ci bëri xam nañ quotient intellectuel euh, am na ci dëkk yoo xam ni dañuy daan jël xale yi bu ñu bu ñu juddoo wala ñu dawal tuuti rek ñu natt seen quotient intellectuel mhm. maanaam pour xool euh, ñaari xale yi kan moo ci ëpp xel mhm. ñaari xale yi kan moo xel mooy quotient mhm. intellectuel noonu lañ ko doon mesurer yenn saa yi ñu ni xale bi am na cent dix kii am na cent vingt kii am na quatre-vingt-dix waaye ñu ni xëy na kii am cent vingt moom moo gën am chance su réussir dans la vie. ki ci gën a ëppale. ki ci ëppale loolu lañ daan loolu lañ jàppoon. bu njëkk ba. waaye bu ñu dawalee bu biir dem nañ ba yëg ni. Mhm. ndekete déedéet mën ngaa bokk ak mën nga ëpp nit ki quotient intellectuel maanaam gën koo muus gën koo mën a régler problème mathématique philosophie ainsi de suite. Mhm. waaye bu ñu dawalee vingt ans trente ans. du mhm. kooku moo gën a réussir. te bu ñu xoolee it suñu école yi xëy a réussir ña daan ña daan am moins dix. yenn yi nga euh, nag <laughs> ñoo jugaat ah, mm-hmm. mm-hmm. ñu def ay gëstu mm-hmm. daan ni attention am na leneen loo xam ne moo ëpp solo moo te ñaar ñi ki nga xamante moo ëpp quotient émotionnel même bu dee kële moo ko ëpp gënoon a muus quotient intellectuel borom quotient émotionnel mais bu ñu doyee la ba ci biir. dinañ yëg ni moom moo ko gën a mën a réussir ci dundam. may wax de manière rek claire. Mhm. tey damay wax ni euh, intelligence émotionnelle loolu quotient émotionnel boobu noonu. Mhm. tey jii euh, que muy ñi ngay liggéeyandoowal wala njiit ma jël ma jël exemple ci njiit. ak mhm. njiit boo mën a doon. moo xam taaw nga ci kër moo xam euh, ci liggéeyukaay bi am na ñoo jiite. moo xam ci ci réew mi am na ñoo jiite. sa intelligence émotionnelle bu fekkente ni dafa faible rek sa jiite dina jafe. intelligence émotionnelle. waaw waaye intelligence émotionnelle man bi ma ci xuusee ba ci biir nag ci laa ni faaw xool ci wolof nan laa ko mën a lan lan laa koy méngaleel. nan lan lan nga koy méngaleel coach. bi may moom laay wax ni bi ma ko xoolee ba ci biir. Mhm. ci laa ni sago bii nga xamante ne moom la ñuy wax. donte mhm. bu boo ko laajee tubaab danaan la rek maîtrise de soi. Mhm. sago boobu moom laa naan mooy intelligence émotionnelle. sago sago ndax sago yamul rek ci ci maîtrise de soi. te bu ñu xoolee ñun ci ni ñu koy ni ñu koy définir. Euh, ñu xool ni nga xamante ne moom la ñu koy utiliser. ci lu mën a doon. Mhm. Mhm. sànq rek ci rajo maa ngi dégg am ko ne àndal ak sa sago. Mhm. donc lu ñuy utiliser la. man bi ma koy lancé en deux mille vingt et un tamit. ma ab baat baat bi. waaye boole koog benn slogan. slogan bi mooy sama sago sama àndandoo. sama sago sama àndandoo. sama sago parce que li ngay wax nii dogguma la dégg naa ba tey sànq ba tey maa ngi tudd baat turu docteur Massamba Gueye. dégg naa ko moom mu ne. baatu sago. moom professeur la ci ci ci ci ci njàngale français. ci ci ci ci ci